bu géejawaay miin nga géejawaay li waxtaanee tey du ñàkk am nga si taxawaay foofu mos nga fa teg sa tànk hôpital hôpital bi dama li ma ci seetlu mooy hôpital bu rafet la ci biti daal boo taxawal ci bi ci biti bi rafet na trop te rëy na hôpital bu rëy la hmm. mais hôpital la boo xamante ne waroon a am rang national mais grand dispensaire la gën a niru li tax mu niru grand dispensaire moo ñu yóbbu ci def ci démission wu effectivement. Euh, moo ñu yóbbu ci démission Papa Touré parce que Papa dafa ne priorité. Mm-hmm. priorité mooy dafa mel ne man ma am néeg ñaax yittewoo terrasse nga may defal climatiseur. climatiseur baa nga ma koy defal da ngay bàyyi ba tabaxal ma sama néegu sama terrasse bu baax hmm. sampal ma ci climatiseur daf ci biir jàngat dafa seetlu ni bëri na ay jumtuwaay yoo xamante ne amul ci hôpital bi ba pare mu yëg ci ay gëstu ci information en tant que PCA que ñu ngi fay def benn centre de procuration médical assisté. Procréation. Procréation. Mm -hmm. euh, centre, médi euh, centre de, de procréation médicale assistée. loolu foog ñu koy wax ci wolof nit ñi xam mooy lan. mën nga jur te seq. am insémination Am pour par exemple mën naa nekk jigéen jëkkër safuma léegi am nga xamante ne dañuy déposer foofu ay maniyu ñu maniyu nga def ko ci jigéen ki et cetera et cetera am na sax ñu xóotal wax bi ne même yëfi góor ji jigéen ak yooyu mais man leeru mais li ma bugg a wax foofu rek mooy finalement ban dëkk lañ nekk finalement est-ce que sunuy politique ñoo koy définir est-ce que hôpital bi biñ koy tabax loolu dafa bokkoon ci contrat bi. Mm. ba tax ñu tabaxal ñu ko naka lañ ñu ko tabaxalee quelles ont été les conditions etc., etc. alors que ñu nekk ci zone bi nga xamante ne paludisme li mu fay faat bëri na li fa tuberculose di faat bëri na li fa jigéen ñi di ëmb. di ñàkk seen doom ndax ñàkk assistance bëri na mm-hmm. mooy priorité yi nga xamante ne moom la Pape Touré wax te yaakaar naa ni euh, geste boobu mu def c'est un geste à saluer parce que mu ngi jot ci information bi au mois de juillet démissionné au mois d'août parce que li tax may wax loolu dafa am ñuy évoquer dara ne way dafa waroon le treize xawma kañ le contrat wam waroon a jeex mm-hmm. mais quand on n'est pas d'accord on dit non soxla nañu biir Sénégal ay citoyens yu mel ni Pape Touré donc ñu ngi koy jaajëfal ci geste bu am solo boobu mu def